قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي أن ليس حدثهم عن أبي زبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وقال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موسى فلعل, فلعل الله وقال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن زهري عن عروة بن سبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتاه يعني عروة بن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلما كلمه أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيتي فرفع عروة رأسه فقال من هذا قال المغيرة بن شعبة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 خليفه الاسلام يي تاي امنا في نيت حديث ان شاء الله تعالى دا نكو اغالي تي دول وقت وياتو ا أه، جيناو لين سي مبوكي دنج دون نيان اب جوتاي بو خامني جوتاي بلو ادي تي اي لاج رك لي دون اكي تونت خينا أه، جابنده وايي جومبل وقت دا ديس كو خامني ديس نا سي مانا تونت سي لين سي جوتا خام حديث بجك بي موي بيغا خاني الامام ابو داوود داف كو ديغي سي شيخ ام بني قتيبه بن سعيد اك كنن كني وخ يزيد ابن خالد الرملي ان ليس حدثهم انا يوم ليس ابن سعد مولين وخ مو جيلي سي ابو زبير موي تابعي بمك تقوى جابر ابن عبد الله جلت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة حديث بمويلان لا يدخل النار دلوب سورة أحد كن mimman baayaa ci ñi nga xam ne jaayante nañ ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam taxta shajara ca ron garab ga jaayante googu moom la ñu tudde bayatu ridwaan mu ngi amoon ci ron genn garab goo xam ne ci béréb bu ñuy wax xudaybiya fa la amee woon garab ga ñuy wax ne arab samura la koy tudde lenn ci wolof yi ñu ne ak déem la ñu ne ak suuruur la ala kulli xaal xeetu garab la ci garab yi samaro lañ koy tudde yonente bi salallahu alayhi wa bi mu génnee ci xaswa boobu yi ñu tudde alxudaybiya jëmoon màkka fas yéene umra ak lu bari ci saxaaba yi ndax ñu ma àndoon ak moom matoon nañ junni ak ñeenti téeméer am na riwaay yoo xam ne junni ak ñetti téeméer la wax am yu ne junni ak juróomi téeméer waaye bi gën a dëgër moo di junni ak ñeenti téeméer noonu la ko alxaafis ibnu kasir notale kon junni ak ñeenti téeméer yooyu àndoon ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ñu dem ba ca béréb boobee ñuy wax xudaybiya yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni usmaan ibnu affan radiallahu taala anhu yónni ko biir màkka ñoom ñi toog ci bitti màkk di xaar bi Ousmane demee yeex a delsiwaat lool ñu daal di tasaare benn xabaar buy wax ne Ousmane mi ñu yónni woon kat mu dem biir màkk bu ñu àggee dañ koo rey xabaar boobu daal di tiis ci jullit yi lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal leen di wax ne nun de jógunu woon ngir xeex waaye nag kon xeex moom du mën a ñàkk bu ñu reyee Ousmane kon sa yóbboo ngeen ñëw jaayante ci fas yéene xeex ak jaayante ci bañ a daw lu metti metti daldi tàllal loxoom jullit yi di ñëw kenn par kenn ku nekk jox ko loxo jaayanteeg moom ci fas yéene xeex ak bañ a daw bi ñépp jaayantee ba jeexal mu dal di jël benn loxoom ba bu tedd ba daal di koy teg ci loxo bi ci des ne lii mooy jaayante bu Ousmane ndax moom it su fi nekkoon kenn du ko ci jiitu biñ jaayante jaayante googu ba toll ci noppi nag la xabaar ba joxe woon ne Ousmane rey nañ ko beneen xabaar dellusiwaat buy wax ne reyuñu ko kon ñooñee nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf leen a woo ci jaayante ñu gaawtu dégg ndigalam donte xeexu ñu it am nañ ca ngërëmul sun borom tabaraka wa taala moo tax yàlla wàcce ca laqad radiya allahu an almuminina id yubayicuunaka taxta alshajara yàlla gërëm na ñu gëm yàlla ñi ngir jaayante gi ñu jaayanteeg yow ci jamono yooyu nga xam ne yéen a ngi toog ca ron ca garab ga kon loolu moo tax ñu tudde ko bayatu ridwaan maanaam jaayante ngërëm la ndax ngërëm a ci mujj ngërëm lu jóge ci sun borom tabaraka wa taala donte xeexuñu itam jaayante googu nag lu rëy a la ci jullit yi ña ca bokkoon itam manoore mu rëy lañ am suñ amul woon lu dul xadis bii rek kooku doy na leen sëkk laa yadxulu naara axadun mimman baayaa taxta shajara xadis bi ni mu nekk ci abu daawud noonu la nekk ci saxiixu muslim noonu la nekk ci musnadu imam ahmad ibn hanbal ab xadis bu wér la boo xam ne amul sikki sàkk al imam al buxaari solo na jële ci ku ñuy wax taariq ibn abdurahman من انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان طارق ابن عبد الرحمن نانا دما مسجن بين يون دي أجي تيون وي مرام بو اي نيت ني جولي سي بن بيرب داف كو لو nee na bi mu fa toll ma di leen waaw wii fas bii jàkk mooy jan nee na ña fa nekk ñu ne ma lii de mooy tolloog moo nekk ci palaasu garab gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon ak saxaaba ya kon dafa wane ne ñooña dañoo def seen jàkka wane ne jàkka ji mooy fi garab gi nekkoon xam naa jublu koo barkeeloo nee na bi mu waxee loolu ne leen lan mooy garab gi ñu ne ko fii mooy fi nga mooy jàkka ji ñu ne ko mooy fi ñu jaayante woon bay atu ridwan nee na fa ataytu saïd ibn mus ibn al musayib fa axbartuhu fa qaala saïd xaddathani abi أنه كان ممن بايع أو في من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة نانا بما نيوي ما ناتلكو سعيد بن المسيب كوكو موم moo doonoon sëriñ bi nga xam ne ci moom la Tariq ibnu Abdurahman doon jànge kon bi mu dikkee mu nettali ko ko ne ko man day bi may aji ren gis naa loo xam ne jaaxal na ma mooy romb naa ay nit ñoo xam ne samp nañ ay bant def ko jàkk di fa julli bi ma leen laajee ñu ne ma fii mooy fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaayante ak ak saxaaba yi nee na Saïd ne ko man de sama baay ci boppam muy al bokkoon na ci ña jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ron garab googee qaal fa lamma xarajna min al aawi al muqbil nasinaha moom bàyyam nee at min jaayante ba dellu madina ca déwén sa bi ñuy del si di aj si wala nuy omra si place ba sax xamatuñ ko far fàtte nan ko ñoom saxaaba yi seen jëmi bopp kon ñu dem ba jëmmi saxaaba yi jeex ba ñu ñëw seen gannaaw ñoom ñu xam place bi moo tax saïd dal di ko ci tegal ne ko falam naqdir alayha maanaam bàyyam mooy wax fa qaala saïd إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم إذا nee na mu ne ko yéen garab gi nga xam ne ña doon jaayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñ jaayante ba noppi ca déwén sa ñu dellu siwaat rek xamatuñ fan la toll woon fañ toogoon daaw xamatuñ ko yéen ngeen jekki ba ñooñu jeex ngeen dikk xam place ba ah yéen de kon yéen a ëpp saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi xam-xam lam ci jublu moo di won leen ni garab googu xamuleen ko ña fa samp jàkka ja dañoo tantale tàndale samp jàkka tudde ko garab ga waaye taxul ñu xam fan la toll nettali taarix ibnu abdurahman boobu al buxaari moo ko solo ci saxiix ibnu saad nettali na ci tabaqaatam ci ab sanat bu wér mu jële ci naafi mu ne omar ibnu alxataab balagahu anna qawman yatuuna shajara fa yusalluuna indaha fa tawaadahum thumma amara bi qatciha fa quticat omar ibnu alxataab nee na bi mu nekkee ci xilaafam dafa dégg ñu ne am na menn mbooloo moo xam ne ci ay nit am na garab gu ñuy dem di fa siyaare ji tudde ko wala ñu fay julli ji tudde ko garab ga nga xam ne moom lañ jaayanteeloon moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante woon bayatu ridwan nee na bi Omar déggee loolu mu xupp leen menacé leen bu méttee métti daal di digle ne ana garab ga ñuy wax ne foofa la biñ ko tegtalee fam nekk mu yebal nit mu dem dagg ko mu daal di koy gor loola jeex kon foofu danañ fi yégee ne euh, al imam abu daawud li tax mu indi xadis bi ci baabun fi lxulafa moo di li yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ne képp ku jaayante ci suufu garab gi kooku du dugg sawara te alxulafaa al arbaa muy abu bakar ak omar ak osmaan ali ñoom ñëpp yàlla dogal na ci biir loola ca lañ bokk yàlla dogal na ci biir loolu ci lañ bokk ndax Ousmane moom ci boppam mooy sababu jaayante gi moom donte jamono yi ñu koy defee nekku ma nga biir màkka ñoom xaw nañoo soreeg moom tuuti waaye teewul boobu moo ku fi nekk ñooyam ci ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la demee woon te moom ci boppam mooy sababu jaayante gi ñaar ñetteel bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteel na ko kon kooku ak jaayante mat ma sëkk moom ci biir loolu kon ñeenti xalifa yépp bokk nañ ci ñi nga xam ne jaayante nañ ci ron garab ga te kon loolu danañ ci mën a jële ne daganul ci benn jullit muy ŋàññi kenn koo xam ne bokk na ci xalifa yooyu kon kon daganul ci benn jullit moo xam moo xam ngir moo mën a tuddoo wala loo mën a bokk waaye daganul ngay ŋàññi kenn ku bokk ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina ku bokk ci ñeenti xalifa yooyu loolu ak réer gu métte métti gu bon la waaye danañ jëriñuwàlle fit leneen ci wàllu pas-pas ci dundiinu jullit yi mu di garab gii nga xam ne garab gu màgg la garab gi bu doon ci xalaatu doomu aadama rek day jàpp ne garab gi moom ab jaamukaayu yàlla sax la war a doon far garab goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog na ci keram junni saxaaba ak ñeenti téeméer ñëw ak moom alquran wàcc foofa wax ni ñii ñëpp yàlla gërëm na leen tudd itam garab gi id yubaayicuunaka laqad radiallahu an almuminina id yubaayicuunaka taxta shajara kon garab gi ci boppam alquran tudd na ko te fi la jaayante gi amewoon yonente bi ci ker gi la toogoon junni yi ak ñeenti téeméer ñoom ñëpp ñu ànd toog kon googu garab defe naa genn gënu ko tedd ci garab yi sampe waaye ànd ak loolu ci fiqhu saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëguñu ne mbir mi ci boppam muy am solo diine day aju ci bërëb wala mu aju ci jamono lu dul sharia moo dikk jox bërëb ba itte wala mu jox jamono ja itte du xel yi ñoo koy defal seen bopp su doon xel yi ñoo koy defal seen bopp rek googu garab moom ku ci am aw àkk sax boo tu da koy denc ci sa walis boo xëyee siyaare ko wala nga am loo cay def loo xam ne jàpp nga ne loolay jëriñ la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa moo gën keneen ku dul moom saxaaba yi gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa ñoo gën keneen ku dul ñoom ñoom ñoo bokkoon toog ci ron garab googu di fa def jaamu yàlla goo xam ne bi mu àggee alxuraan dafa wàcc ne yàlla gërëm na leen mu jeex yonente bi ne képp ku bokkoon ci loola doo dugg sawar kon mbir mu màgg ngoo waaye teewul déggu saxaaba yi diine xam nañ mbir ma la ko joxe mooy topp ndigal ga jaayante gam ni jaayante leen ñoom ñëpp ñu gaaw jaayante loolu moo leen may lañ am waaye du garab gañ toogoon moo leen ko may wala weer wañ toll woon ci jooju jamono moo leen ko may loolu moo tax xew-xew yu rëy yi xew ci lislaam man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo doon dikk bëgg xam place ya yu ci bari doo ko xam boo doon dikk bëgg xam jan jamono la xewoon yu ci bari doo xamoon jamono ji ndax li ko waral moo di mbir ma ci boppam fa mu nekk mooy jëmmi topp ndigal gañ doon topp yonent bi digal ñuy def lañ am ca lañ ko ame ku ñu raw ca loola lañ la rawee koo xam ne nag dangay xalaat xalaat yi nu gone boo wëlbatikoo ci yi ngay gis rek yooyu ngay defe ne mooy maye mbir bu ñu lay ci garab gi la toogoon nga ne ah kon de googu garab moom war nañ koo fonk war nañ fee samp bu yeexee sax nga wutal ko bis boo xam ne saa bu jotatee ci at mi wutal boole place bi ak jamono ji saa bu waxtu wa jotatee ci at mu ngeen bokk daje fa garab ga def fa yoo xam ne yenn yi mën naa doon luy nuru ay jaamu yàlla yi ci des mën naa doon yuy nuru po ngeen tàqali ko tasoorawaat kenn ku nekk defe ne def nga luy nuru xeetu jaamu yàlla fekk loolu ci boppam lu lay delloo gannaaw la jullit yi ci seen bopp la leen jëmale kanam mooy topp nga ndigal loolu moo tax Omar ibnul Xattaab bi mu yëgee ne am na ñuy dem di siyaare ji garab googu mu daal mu metti xupp daal di yebal nit mu dem dagg garab ko kon loolu mooy taxawaayu saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jeexit yu mel noonu kooku mooy taala anhuma bi ci tegu mooy abi hurayra abu daawud daf ne xaddasana muusa ibn ismail qaala xaddasana xamaad ibnu salama mu jëlewaat sanad bi ci ahmad ibnu sinaan mu jëlee ci yazid ibnu haroun mu jëlee ci hamad ibnu salama mu jëlee ci asim mu jëlee ci abu salih mu jëlee ci abu hurayra kooka qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi waalihi wasallam ci riwaaya muusa ibnu ismail dafa indi fa laalla allah waaye ahmad ibnu sinan moom waxul laalla daf ne rek ittalaa allahu ala ahli badrin fa qaala icmaluu ma shi'tum faqad gafartu lakum loolu di lu rëyat daf ne moom yonent bi sal allahu alayhi wa sallam ci biir xadis ittala allahu ala ahli badr sun borom tabaraka wa taala xool na waa badr ne leen lu leen neex def leen jéggal naa leen icmalu ma shi'tum def leen lu leen soob faqad xafartu lakum jéggal naa leen loolu lu rëy la loolu tuutiwul def leen lu leen soob su demee ba sunu borom tabaraka wa taala am aw nit ñoo xam ne wax na ko ci seen mbir ab yonentam ba mu yebal nit ñi di ko topp mu jot li loolu ne suñ borom tabaraka wa taala wax na lii ñooña di ko dégg te taxul ñu soppiku te taxul ñu soppiku loola mooy wone ne yeyoo nañ ñu wax leen loolu loola mooy wane ne yeyoo nañ ñu wax leen loolu kon kooku dañuy wax ne اعملوا ما شفتم ما شئتم كوكو إفصاح عن كمال الرضا وصلاح الحال وتمام التوفيق وليس ترخيصا بارتكاب المعاصي أبدا kon def leen lu leen soob kooku lun lañ koy déggee moo di kooku suñ borom tabaraka wa taala gërëm na leen ngaram lu mat sëkk seen mbirit baax na ba faw tey tawfiq la ñuy dund seen dunduk àdduna ak seen dunduk àlaxira kon loolu taskiya la bu jógee ci suñu borom tabaraka wa aw melokaan lañ mel woo xam ne dañu faa àgg suñu borom tabaraka wa may leen loolu may leen loolu waaye suñu melul woon noonu ku ñu wax ne la lu la neexati say bo nga def ko yàlla wax ko ci yow ab yonentam jot li la ko ah bu fekkee ni defaru woo boo jógee lu la neex def waaye fekk ne jëmmi defaru ci boppam moo tax ñu yeyoo loola seen borom ma wax loola xam na ne ñii mel nañ noo xam ne suñ déggee loolu it du tax bu ëllëgee buñ jógee jaar ci yi nga xam ne yuñ leen tere la bàyyi yi nga xam ne yuñ leen digaloon la kon loolu moo tax ñu yeyoo loola kon am nañ foofa loo xam ne ñoom dong ñoo ko yeyoo keneen mënatu la demati ba am leneen lu mel noona xam ngeen ne waa badar mbooloo lañ woon ñoom itam ndax ñetti téeméer lañ woon ak fukk ak ñeent ñooñu ñëpp ñi ca bokkoon borom bi tabaraka wa taala may na leen boobu garaat mu di def leen lu leen soob jéggal naa leen waaye nag loolu faw ñu dégg ko mooy lan moo di borom bi tabaraka wa jéggal na leen ci àllaaxira ku ci juumoon ba def ay mbir yoo xam ne yuy juuyoog li sharia def la nga xam ne njuumte moo la ci yóbbu loola suñu borom tabaraka wa taala jéggal na la ko <coughs> amul wax ku ci amoon bàkkaar boo xam ne tàbbi na gannaaw bu loolu amee wala mu jiitu woon loolu it bàkkaar boobu suñu borom tabaraka wa na la ko waaye tekkiwul nag ne dañuy daal di mucc ñu mën a duutuñu def bàkkaar mukk képp koo xam ne doo ab yonent faw da nga juum da nga def bàkkaar loolu moo tax ngay soxla bi jéggulu jamono yu yu mën a doon kon seen bàkkaar ñoom yàlla xabaar na leen ne jéggal na leen ko waaye teewul ñu daan jéggulu seeni bàkkaar loolu fu ñu ko jële mooy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam yàlla wàcce na alquran ne ko yàlla jéggal na leen li weesu ak liy ñëw ci say bàkkaar te teewul muy jaamu yàlla di sonn di julli ba ay tànkam di bi biñ ko laajee lii lu tax Aïcha ne ko yow xanaa du yow la yàlla jéggal sa bàkkaar yi weesu woon ak yi ñëw mu ne ah lool su amee ndax nag du ma sant yàlla kon ndax kon du ma sant yàlla kon nga xam ne kay yeyoo yàlla di ko xabaar ne ko jéggal naa la sa say bàkkaar day am melokaan wu meloo woo xam ne loola mooy tax mu yeyoo loola mais su dul loola du ko yeyoo mukk kon nu dégg ne loolu mu ngi aju ci mbirum alaxira waaye ku ci defoon bàkkaar bu aju ci mbirum àdduna it suñ borom mën na la ko jéggal ci alaxira waaye su fekkee lu ab jëtan war la maanaam am na lu ci war loo xam ne charia dane ku def nangam dañ ko def nangam ku ci defoon lu mel noonu it dañ lay teg loolu dañuy teg loolu ci sa kaw loolu moo tax mistax ibni usaasa mu doonoon mbokkum abubakar as-siddiq mistax moomu bi nga xamee ne naafiq yi tuumaal nañu Aïcha radiallahu taala anha ci tuuma ju bon ja am ay nit ñu bari ñu cay wax ba am sax ñu baax ñoo xam ne dugg nañ ci ba wax ca mistax moomu dafa bokkoon ca ña ca doon wax bi nga xamee ne dem nañ ba set ga wàcc ña nga xam ne jot nañ leen a dóor teg leen géttanub ku xas ab jullit bu jigéen géttan bañ la war a teg ñañ doon géttan mistax bokkoon na ca yonente bi sallallahu alayhi wasallam jald na ko def na ko li ñuy wax caw cawi ko xaste juróom ñett fukki at te kooku ci ñi teewe woon badar ci la bokk ñi teewe woon badar ci la bokk kon def leen lu leen lu leen soob suñ leen koy waxit loolu jubluwuñ ci xotti sharia nga xam ne su la neexee nga def yiñ tere su la neexee yiñ digal nga bàyyi ko yiñ digle nga bàyyi ko waaye liñ ci jublu moo di su fekkee ne am na bàkkaar yuñ def yoo xam ne yuñ tëyut la sun borom tabaraka wa taala daf leen koy jël yow ma seeni bakkar buy tabbi rek fekk na jéggale nañ ko kon xadis ngoog boo xam ne bu màgg la moom it li tax euh, al imam abu daud, andi ko ci bunt bi muy buntub al xulafa moo di ne moo di ne xulafaaw yi rawatina ñeent ñu jëkk ñi ñoom ñëpp ci waa badar lañ bokk raxamakallah ñoom ñëpp ci waa badar ci lañ bokk ñett ñu jëkk ñi muy abou bakar ak omar ak ali ñett ñooñu ñi ko teewe ci lañ bokk bokk ci xeex ba ousmane ibne affan radiallahu taala anhu teewewul xeex ba waaye ab acteem ci la bokk moom itam lu tax mooy ba ñuy xeexi badar soxnaam dafa feebar di doomi yonente bi salallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko toogal taxawu sa soxna ñu nekk ci xeex ba mu nekk ci kër gi di garder soxnaam di ko raglu di ko toppatoo ba ca ba ñuy ak si ñoom xeex ba di jeex fekk na soxna sa faatu na bañ ko dencee bay noppi rek lañ seen jullit yi jóge ca jóge ca xeex ba di ñëw moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi muy séddalee li ñu tudde ghanaim muy yiñ màng xeeti alal yu nangoo woon ci yéefare bañ leen gañee biñ koy séddale dafa defal Ousmane ibn Affan radiyallahu taala anhu cër bu toll ne cër yi ña nga xamne téwé nañ Badr ñëpp mo ñëpp ñu tollu ab cër kon mu won la ne Ousmane dañuy wax ne ñi ci dess ñatt ñi téwé nañ al Badr xuduran waye mom téwé na Badr hukman manam atte bobu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam dox kon ginaaw jox nako ko ab cëram ci aduna bépp cër bo xamne jox nako wa waa Badr dañuy gëm nun julli dina Ousmane ibn Affan ci cër bobu ci la bokk moo xam cëru àdduna la moo xam cëru àllaaxira ndax loolu jox gi ko jox cër teewal na loolu firndeel na ko kon li tax al imaam abu daawud andi xadiis bi ci ba buntub al xulafaa buntub xalifa yi moo di nga yëg ni ñeenti xalifa yépp ci waa badar lañ bokk te yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moom moo bégal ñooñu ci àjjana moo wax ne yàlla ci boppam xool na waa badar ne leen def leen lu leen soob jéggal naa leen seeni bàkkaar kon loolu du sore ak xadis bi weesu léegi mu ñu jaayante ci ron garab ga ñoom ñëpp kenn du ci dugg sawara kon jéggal nañ leen seen i bàkkaar ndax li ëpp ci waa Badar ku ci faatuwul ci diggante bi rek faatu ci Uhud wala yu mel noonu bokkaat nga ci ñi jaayante woon ci suufu garab gi kon ñu ci bari boole nañ ñaari ngëneel yooyu fekke Badar fekke bayatu ridwan kon xadis bi danañ ci jariñoo ngëneelul ahlu Badar ak seenu jiitu képp ku dul ñoom ak itam ne daganul ci képp koo xam ne yaa ngi tuddoo ab jullit ngay wax ci ñoom lenn loo xam ne lu ñaaw la jëmale ko ci seenu der ndax képp koo xam ne suñu borom tabaraka wa wax na ne diwa baax kooka moo baax ak lu mën a xew jamono yoo xam ne yëkkati nga kàddu goo xam ne da wax ne diwa bon te fekk yàlla nee na moo baax su boobaa yàlla ngay weranteel du yàgg nit ñi bu boobaa yàlla ngay waxal kon loolu loolu leer na xadis yu gàtt lañu waaye xadis yu fullawu lañ yu am jariñ leen tam xadis bi ci tegu ba tey xadisu muhammad ibn ubayd mu jëlee ci muhammad ibn sawr mu jëlee ci maamar mu jëlee ci zuhri mu jëlee ci urwat ibn zubayr mu jëlee ci almiswar ibn maxrama mooy nettali mu ne xaraja nabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam zaman alxudaybiya mu ne yonente bi sal allahu alayhi wa sallam génn na ci jamonoy alxudaybiya mooy génn googu ñu génnoon jëm màkka doon omra ji te yéefar ya wàññi leen ci la xew-xew boobu ñu weesu léegi muy jaayante gi ci la xewoon fa dakar al xadis nee na mu tudd xadis ba xadis ba nag bu gudd gudd la mi ngi ci saxiixul buxaari daanaka bu dul xadis ba gën a gudd ci saxiixul buxaari tey ci gën a gudd ci la bokk qaala fa fa ataahu yaani urwata bni masud nee na ku ñuy wax urwata bni masud dikkee yonente bi salallahu alayhi wa sallam xam nga ne biñ dikkee ba agsi foofu toog jullit yi toog ci bitti makka ci béréb boobu ñuy wax al xudaybiya yonente bi salallahu alayhi wa sallam yebal Ousmane bi Ousmane del seyit teewul yéefari makka dañoo tàmbali di yebal ay ndaw ngir ñuy seet si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak jullit yi lan moo leen tax a jóg ñu yebal ay nit ñuy dem ak ñëw di dem ak ñëw ba mu yàgg ñu yebal leen Urwat ibn Mas'ud bi mu dikkee nag moom la tàmbali di laaj ak wax nee na bi mu dikkee fa jaala yukallimu nabiya salallahu alayhi wa sallam moom Urwat ibn Mas'ud bi mu agsee muy wax ak yonente bi وكل فكلما كلمه اخذ بلحيته صاب واخ يونت بي جاب سي سيك مو يونت صلى الله عليه وسلم تاخو جاكار مو دي واخ لولو سي ادا يي عربي دي فرال دي جفلنت لا بوك سيني واخ نيت مل كوي فوق موم ولا كوي كفوك موم نياري داني جاب سي سيك موم لول دنج كو دان ديف واي رك نياري كوكاي ديف سا موروم غاكاي ديفال waaye doo ko def ko la féete kaw ñi moo ñëw ba ci sa baay ngay wax ak moom di jàpp ci sa sikkim sa morom nga koy jëflanteel moo عروة بن مسعود بن ديكي فك عليه الصلاة والسلام متامبلي ديكو دف نونو نينا والمغيرة بن شعبة صحابي بو مغ بو المغيرة بن شعبة نينا قائم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخو تيم يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم متوق يونتبي توق المغيرة بن شعبة تخو تيمكو ومعه السيف نينا متخو تيمكو يور كون كوكو دارون غاردي يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم كون دانن سي دغنا دغنا جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة ونحوها من ترعيب العدو وترهيبه دغن سي كون كيغا خاني موي نجيتول جوليت ني موي سين ولا موي امام لين سي نيوم ام كو تاخاو تيم كو ديكو غارد يور غاناي كون لولو دو داكونتي صلى الله عليه واله وسلم تري نيت كي نيت ديكو تاخوال لولو بوكو سي xam nga am na xadis boo xam daf ne ku bëgg am ñu lay taxawal foo toog boo agsee ñu ne bërit ñëpp ànd jóg taxaw wala boo toogee ñu taxaw tiim la nee na ku bëgg loolu sooy boo nga jël sa place ci sa wax man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawa maqadahu min annar noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci ab xadis boo xam ne xadis bu wér la kon xadis bii tere ku taxaw bokku ak taxawaay boo xam ne taxawaayu garde la wala taxawaay boo xam ne pour wane doole yi nga ñëw la ndax al imam ibnul qayim ni mu koy nettalee daf ne taxawaayu muhira ibnu shoxba boobu tiim yonent bi salallahu alayhi wa sallam yor jaaseem te fekk yonent bi ku bañoon lu mel noonu la waaye nee na li tax mu dagan nee na kooku sunna su yonent bi salallahu alayhi wa sallam taxawal la mu di su fekkee ne ab noon dikk na di seet si koo xam ne mooy njiitul jullit yi wala mooy njiitul lenn ci jullit yi ñëw jullit yi dañ ko war a won fiñ toll ci seen doole